mbokk internet yi safoo teewlu info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar ñu wax ci ay kàddu kii di maître Ngagne Demba Touré gannaaw ab live boo xam ne nag mi ko doon amal daal ci uh, àdduna ak jëmale ko uh, ca la nga xam ne état bu Sénégal uh, moo ngi koy jéem a def ngir rek mun a tere kii di Sonko mu bokk nag ci élection palum njiitum réew yi ñu dégmal moom nag nee na état bu Sénégal def daal ci xamal ñi nga xam ne ñoom ñooy institution yi yëpp. jàpp ne ngir rek ki nga xam ne moom mooy mandataire bu Ousmane Sonko di Ayib Daffé ak ñamu àndal nag saa yu ñu ñëwee rek bu ñu leen a bàyyi ñu dugg wala sax ñu daal di leen di bloqué fi nga xam ne nag moom mooy ci buntu yi loole nag nee na moom maître Ngagne Demba Touré nag mu daal di ci dolli ne conseil constitutionnel nag mënul bañ a nangu contrôler dossier Ousmane Sonko ndax nag nee na dafa am loo xam ne nag ñu ngi koy ruumandaat ci suufu ndax nee na conseil constitutionnel dafa wax ni eh, képp koo xam ne rek xam nañ ne sa dossier am na benn loo xam ne rek manqué na ko duñu contrôler li nga xam ne nag moom mooy eh, sa parrainage ci noonu nag mu xam ne ne Ousmane Sonko moom dafa mat kon nag conseil constitutionnel ñu ngi xaar rek ba xool ndax du jël dossier Ousmane Sonko daal di ko càmbar ci wàllum parrainage yi loolee nag la xamle moom maître Ngagne Demba Touré di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen abonné ci suñu chaîne